Donc bonjour chers internautes de IGF1.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour Madame Acha Madame K Yayawan. Bonjour Madame. Bonjour. Euh, madame K, rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter davantage à nos internautes Oui, euh, Madame Ka Acha Yayawan, opératrice économique. Euh, présidente de l'association ACF, Association sénégalaise pour l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association Quand est-ce que vous l'avez créée Quels sont les objectifs hmm. On militait dans le social il y a longtemps, on travaille ensemble aussi il y a longtemps aussi, mais c'est cette fois-ci qu'on a décidé euh, de créer l'association pour que toutes les femmes s'y mettent. Euh, pour que chaque femme, comme, comme, comme l'indique son nom, soit entreprenante, entreprenante et autonome. Mm-hmm. C'est ça le but de l'association. Mm-hmm. Quand est-ce que vous l'avez créée euh, ça, vient juste de faire presque au mois. Mhm. on Et on a fait le lancement le 8 mars, journée de la femme. Comme toute femme, nous avons célébré la journée. C'était notre première édition et machallah, Dieu merci, ça a été une réussite totale. Mhm. Alhamdulillah. Alors, euh, quels sont les profils que composent cette association euh? dans cette association, il y a beaucoup d'activités. Et aussi, il y a beaucoup de femmes. C'est une association qui circule et qui est partout à travers le monde. Il y a des dames qui sont aux États-Unis, au Gabon, en France, au Sénégal, pour le moment. C'est international. Alors, euh, souvent, ces genre de mouvements de femmes, euh, on soupçonne que peut-être qu'il y a des politiques derrière, surtout euh, quand on est à la veille des, élections. C'est le cas On n'y a même pas pensé quand on créait l'association. On n'y avait même pas pensé. lors de notre première réunion, on a tenu à préciser, à dire que c'est apolitique. apolitique. N'empêche qu'on a eu le soutien euh, de, M. monsieur le directeur général de l'ADS, M. Pamaï Diop, qui nous a vraiment soutenus lors de notre première édition, à vrai dire. Alors, euh, est-ce que en termes de chiffres, vous êtes au nombre de combien de femmes 1000 femmes. 1000 femmes. Nous sommes 1000 femmes. Nous avons vendu nos cartes membres, nous sommes mille femmes. Notre objectif euh, pour le début, c'était, dans un premier temps, c'est 1000 femmes. Et on l'a obtenu. Dieu merci. Et vous êtes la présidente Je suis la présidente. Alors, vous, votre parcours, c'est quoi Moi, mon parcours, euh, j'ai commencé, j'étais dans l'enseignement. Hmm. Mon papa a une grande école privée au Parcelles Assénie, l'école privée d'Indacham. Hmm. J'étais une éducatrice préscolaire. J'ai enseigné dans le préscolaire pendant six ans. Après, je me suis dit que c'est une affaire familiale. J'ai demandé à mon papa de me donner la permission parce que j'ai toujours voulu entrer dans la mode. Actuellement, là où je vous parle, j'ai un grand atelier de couture qui marche. Je voyage partout à travers le monde. Je suis revenu euh, fraîchement des États-Unis il n'y a pas un mois. Je vais aux États-Unis, au Gabon, en Arabie Saoudite, à Dubaï, au Maroc pour le moment. Alors, 1000 femmes. Euh, au Sénégal et dans le monde. Alors, euh, les financements, comment vous comptez les Pour le moment, nous, nous, finançons nous-mêmes. C'est ce qu'on ce qu'on se dit. Les à chaque fois, nous avons fait ça le coup de l'embêtibir. Qui première édition, nous avons dit sur une carte de membre. Carte de membre, net, il 5 000 francs. Bien d'ailleurs, sur une carte de membre, ça nous a fait euh, 5 millions. Nous avons fait bu si ñu defee lancement bi ba mu viser par exemple Kaolack parce que dañu am le bu mag Kaolack

macha allah jox ñu li ñu añee yëpp jox ñu ceeb jox ñu diwlin jox ñu li li fi ni ñuy naan li li ñuy lekk yëpp c'est pas Mayel Diop directeur ADS moo ci jàpp wax dëgg yàlla alors ministre de la femme aussi mi ngi jàppale jigéen est-ce que yéen a ngi espérer que un jour peut-être ngeen gis pour mun a mu jàppale leen ci dem nañu seeti ko yóbbu nañ ko enveloppe am mais gisaguñu dara waxaguñu dara ñu ngi déglu parce que tamit pour wax ne jàppaguñu tamit dafay teel xam naa jour boobu tam charger chargé woon euh, dafa appel au de jigéen ñëpp ñun dañoo yéex a xam ne moom dafay def manifestation limite bi ñu demee ba bureau am nañu secrétaire wax nañu que moom dafay organiser fekk ñu lancé woon nañu suñuy carte yi ba pare mënatuñu woon reculer mais bu ñu xamee woon ne moom dafay euh, def noonu manifestation bi kon dañu jël suñu bos reculer ko ba mu passé ñu dem jàppale ko ci bésam n'empêche euh, am na ñoo xam ne suñu moitié yi am na ñoo xam ne dem nañu fa jàppale ko parce que tamit euh, ñun waa COFA monsieur présidente bi Ajaratu Aram Thiam ñëw na ci suñu jour bi te avant bu ñëw foofu la njëkkee macha allah ñëpp benn jigéen ñëpp ci jàpp.

li reste ci biir boobu ci biir loolu day nekk 100 femmes ñooy def loolu am ci boo xam ne nattu denrée alimentaire la boo gañee kenn du la jox xaalis da ngay dem ci boutique grossiste bi jël fa li nga soxla ci sa ndimbal parce que fii Sénégal ku nekk xam na ne lekk yombul mais lépp dimbale njaboot ci la bokk ci solidarité la bokk macha allah te dañuy dox ci solidarité bu bëri macha allah bu ñuy avant ñu def suñu lii visé nañu benn daara Parcelles Assainies bu Modou Bousso sëñ Modou Boussa dem nañ fa jox ko ceeb diwlin eau de javel ay madar pour mu jàppale ko ci internat bu gis nañ tamit genre association yooyu tamit bu ñu taxawee. souvent dañuy dem ci prison yeeg jigéen yi nekk dans des kii est-ce que yéen jot ngeen ko def ou bien mi ngi seen programme. comme ni ma la waxee rek mu ngi suñu biir programme man macha allah ku ma xam-xam ne ci soldat rek laay dox. munu du ma jay sama bopp mais Sénégal ñëpp xam nañu man du ma am mag nit ñi mag doomu aadama yi ñoo koy bokk lekk ma dara bàyyi kenn loolu mu ngi sama biir xel mu ngi sama biir xol mu gis sama biir xalaat balaa yàgg dara bu ñu defee suñu synthèse après di ñu dajaloo dem seetu suñu mbokk jigéen ñi nekk foofu tamit am lu ñu defante ak ñoom macha allah incha allah mu ngi suñu biir projet du yàgg dara dinañ fa dem bu soobee yàlla suñu borom. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. alors yow sa ambition personnelle la.

li ñu bëgg mooy jigéen ñëpp ku nekk am ci loo jàpp tabaarkàlla kaan macha allah ku nekk am ci loo yëngu amatuloo benn jot loo xamante da nga ciy yëngu dimbali ci sa njaboot tabaarkàlla kaan macha allah dimbali sa borom kër comme ni ko ci nekk ci kaw yëpp di defee macha allah loolu suñu ambition que chaque femme soit autonome soit indépendante. c'est ça je remercie malgré ngi remercie sama vice-présidente comme ni ma la ko rek je suis revenu tout fraîchement des États-Unis il y a pas un mois dama ñëw pour une semaine lii lu ma yàgg xalaat la lu ma yàgg m'a lu sama ambition la mais léegi da ko yàlla dogal macha allah di ko yàlla dogalee yomb ma woo sama xarit ne ko man lii laa bëggoon def man ma maa ngi sa ginnaaw ma woo sama benn xarit depuis 80 moi j'ai commencé à aller en Arabie Saoudite depuis 94 moo sama xarit bi nekk foofu Fatinaaru am nañ service bu baax bu dëgg tam bu nekk Arabie Saoudite boo xamante ni suñu sœur di fa nekk ñu ci jàpp bu baax a baax a baax ajaratu màgget Diouf moom moo yore boobu boobu côté euh, moom mooy secretaire général bi euh, la vice présidente c'est madame Ndeye Fatou Dianka macha allah ñu nekk sama ay sœur avant loolu yëpp sama xarit lañu ñu ànd yëkkatee ndoo dooru ndoo ko yàlla defal ci def tey bi macha allah di remercier sama dañuy wax derrière chaque grand homme il y a une grande dame mais derrière chaque grande dame aussi il y a un grand homme ...je remercie sa famille tabarkalla kaar macha allah sama ...ma Diko ko gërëm di sant sama papa fi mu nekk may ñaan yàlla bi dara tëwul yàlla ko gënal fi mu jógee macha allah di remercier tamit euh, sama directrice de communication madame Guissé Khadijatou Diouf ...ou Kaltoum Diouf macha allah di remercier Sénégal parce que man li à chaque fois du may star du ma dara mais dañ ma xam ci Sénégal macha allah te li ma xamee lépp mooy ci lu baax loolu nag ma bëgg ci yëngu nag dugal ci samay xarit dugal ci samay sœur dugal ci yëpp ñu ma yàlla boole ci àdduna macha allah loolu mooy sama ambition. di remercier sama petite sœur Sélé Yaya xam ne moom tamit appui bu total dama ko ko wax mu ne mu puus ma dama dema mon petit frère Abbas Yaya Wane procureur. sama petit frère oui Abbas Yaya sama frère. rek. chaque dimanche ñom dañuy dajalo parcel dima conseiller ku nekk di ci japp ku nekk dima ma demal japp di sa ginnaaw vraiment ma ngi di remercier bu baax a baax baax sama famille man ku ma xam-xam ne man dama affective euh duma wax sama famille man dama bëgg doomu aadama macha allah dama bëgg doomu aadama sama bay xarit dafa ne acca ma xanaa mu ne ma li tax nga créé lii mooy bugguloo yow di wër sa kër bugguma ko su ba yaké sama añ gisuma gan dama taxo ci mbéd bi xol ba gis ko ba xam mo ok ma ñëw bokk ak mom limay may moo tax na ma bëgg ko élargir macha allah di ñaan yàlla bi dara tuul yàlla na ko yàlla yaatu mel ci lu kawe suñu jox daraje yaa rasulallah barke alquranul karim merci bien